asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan eh, tey jii nag ñu fas yéene ñëw indil leen eh, xew-xew bu mag boo xam ne mi ngi amee woon fee ca Poroxaan ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa mi fi nekkal xaadim rasul eh, jox digal daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitu sëriñ Afiya ci alxamis ngir ñu ñëw Poroxaan fanaan si fa allah ngir waajal ubbite jumaay Poroxaan ci loolu nag daayira Muxaddamatul Xidma daje nañ fii ci jumaa ji ci alxamis ci suba gi e, e, ci mboolem membre yi nga xam ne ñoom la dayre bi waajaloon ngir ñu dem ñu déparé fii ci jumaa ji ngir fas yéene dem ci dëkk bu sell boobu jóge ci fii ci dëkk bu sell bi ngir jëm ci dëkk bu tedd boobu di Poroxaan e, bi nga xamee ne àgg nañ nag ci bi midi di des tuuti rek daal nañuy dem ci kër sëriñ ba ci kanam tuuti ngir ànd ak moom sëriñ bi jiite ñu bar ñu nuyu sëriñ bi saafonte ak moom euh, mu leeral ñu ndigal li nga xam ne moom la ñu jox leeral ko sëriñ Afia kilifa gi ak mboolem membre daayira bi ak ni mu ko bëggee euh, ndigal li nag mooy ñu ñëw ngir taxawu julli gi ci benn anam la ci loolu ci anam ya waaye tamit euh, tàggat ña nga xam ne ñoom lañ fay bàyyi ngir liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def fii ci jumaa ji ci wàllu setal gi ak ci wàllu organiser sappe yi tàqale góor ñi jigéen ñi ak lépp loo xam ne rek gis nañ ne liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma la ngir ñu tàggat ndaw ya nga xam ne ñoo nekk foofu ci xaan ñu koy def foofu tax na nag ci ngoonu alxamis gi daje nañoo euh, euh, mboolem ñi nga xam ne ñooy organiser jumaa ji rawatina ñi nga xam ne nag ñoo fay des ngir def ak ñoom waxtaan wu am solo woo xam ne saaru formation la ngir wan leen ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee ci jumaay Tuuba tàggat leen ci ba noppi xaaj ko ñetti xaaj benn bi ànd ak ñun ci biir jumaa ji ngir ñu wan leen méthode bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii bi ci des ci bitti bi ci des dem ca fa ñu tàqalee góor ñi ak jigéen ñi ba def ci liggéey bu kawe njort boo xam ne ñoom ci seen bopp jël nañ ci expérience boo xam ne tey jii dañuy mel ne daayira Muxaddamatul ma soos nañ ko Poroxaan bàyyi ko fa ngir lépp loo xam ne ñi ngi koy def fii ci jumaa ji te aj ko ci dénkaane bi nga xam ne ak ñaan gi nga xam ne sëriñ bi def na ko di wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wafi sëriñ Tuubaa waxoon boroom ñaanoon boroomam ne ko nang ma defal sama barab ak samay ñoñ ñu baax ba ñuy roye ci ñoom ak mbaax nga xam ne tey képp koo xam ne ñëw na fii daf na fi gis diine ju mat sëkk joo xam ne ak mbaax gu mat sëkk goo xam ne fu mu dem da koy roy loola mooy sonaga daayira Muxaddamatul Xidma loolu la ñu sëriñ bi digaloon ñu def ko ci biir loolu nag Euh, ànd nañu ak ñoom liggéey bi ci bi nga xamee ne juróom-ñeenti waxtu jot na ci suba ci ajuma di bis bi nga xam ne ci lañu war a ubbi jumaa ji xëy si nañ ci liggéey bi euh, ngir def mise à place bi wan leen tamit ni nga xam ne ni lañ bëgg ñu liggéeyee ko ak ni nga xam ne ni lañ bëgg ñu doxale ko julli gi euh, ak ndaw yi nga xam ne ñun lañ ñoom la ñu booleel kenn ku nekk ñu teg la fa nga war a nekk ba noonu lañu àndee ci wàllu liggéey bi ci li tàmbalee ci juróom ñeenti waxtu ba bañ julli tusbaar ba noppi ci biir doolu tamit bi nga xamee ne teg nañ acte yi nga xam ne teg nañ ko ba noppi euh, xam nga ne bi nga xamee ne ñëw nañ sëriñ bi boole ñu ak jëwrin yi nga xam ne ñoom la ñu booleel euh, dem nañ ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi euh, ginnaaw bu ñu gisee sëriñ bi ba pare dem nañ ci sëriñ Moussa Mbacke naawel mi nga xam ne mooy jëwrinam gisee ak moom waxtaan ak moom waxtaan ak moom tamit ci li nga xam ne moo ñu fi indi ak ndigal li ñu sëriñ bi jox gis nañ tamit sëriñ Isaaxa Mbàkke mu Cheikh Amadou Basir moom it moom it mu euh, gën ñoo dolli ci ñu gën a euh, fagaru sax ci niñ koy defee ci jumaa ji ci wàllu sas barrière ngir mbas mu xew euh, ginnaaw bi ki nga xam ne mooy Cheikh Basiru Mbàkke Poroxaan moom mi nga xam ne moom mooy jëwriñu sëriñ bi foofu ca Poroxaan yoroon tamit jiite woon tamit organisation ouverture mosquée bi gise nañoo ak moom dem nañ këram ginnaaw bi it ñëw na xool mise à place bi niñ ko nosee ba biñ noppee sax euh, euh, félicité na daayira Moukhaddamatoul Khidma ngir liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne gis na ko ak organisation bu leer bi nga xam ne euh, def nañ ko ba ci lañ taxawee ci julli gi niñ ci war a taxawee jubbanti sappe taqee góor ñi ak jigéen ñi ba képp koo xam ne gis nga image yi da nga xam ne julli gu dala ngi nii guñ nosa ngi nii goo xam ne teg nañ ko ci yoon wi nga xam ne moom la ñu koy defee fii ci jumaay Tuubaa te ñoom it jël nañ yoon woowu ba fas nañ ko yéene saxal ko foofu ci e, jumaay Poroxaan incha allah. kon loolu e, mbir la moo xam ne kon ndigal la loo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma saa su ko jotee ñoom ay soldaari Xaadim Rasuul lañ yoo xam ne saa su jotee sëriñ bi ci ndigal rek. dana jóg defe ko noo xam ne day fexe defe ko nu kawe njortu ndigalu sëriñ bi loolu nag moo ñu yóbboon Poroxaan ñuy jëf ndigal li ba kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ko doon jëfal euh, bég ci mbég moo xam ne euh, seeral ñu ko sëriñ Touba moom sëriñ bi moom mi nga xam ne moom lañ doon jëfal te ñun rek la ñu jëfal waxtu nag noonu lañ ko defee woon ci bi nga xamee ne ñu ngi ubbi Masalik ci ndigalul sëriñ bi moom it dem dakaar am fay fan ngir euh, organiser loolu noonu lañ ko defee tamit ci ci Poroxaan incha allahu rabbi fii lañ nekk ci jumaa ji lu mën a xew tamit saa suñu sëriñ bi digalee ngir ñu dem jëfi dara rek noonu lañ koy jëfee eh, ba nga am ci lu kawe njort kon daal yàlla nañu yàlla defal di waqdi xawaaiji allazina daamu fi xidmati wa hablahum maraamu inna allazina shaarahu li xidmati fa la lahum diyaara wasal jannati ñu yàgg fi lool te wér te yàgg liggéeyal sëriñ bi te am xéewal yu sax dakk ci mboolem day membre yi daayira bi waaye yàggal fii Cheikh Mahmadul Muntaxa mi nga xam ne moo ñuy jox ndigal mu yàgg ñoo jox ndigal ñu yàgg ci am ngërëmul xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu